dalleen ak jàmm mbokk internet du net bi TV Sénégal tey nag di manifestation bu Yewwi Askan Wi bëgg amal foofee sa cité kër góor gi sa buntu kër usmaanu Sonko ngir rek daal di dindi baare teg sa kër Ousmane Sonko ngir rek mu daal di mën a génn dem doxi ay soxlaam comme ni ko ko yoon mayee waaye it mu mën a préparer tabaski bi ba tax nag Yewwi Askan bi daal di oo Sénégalais yëpp ngir rek ñu daal di daje sa buntu kër usmaanu Sonko ngir fas yéene dindi bloqué yi ñu fa def te ñu jàpp ne teguñ ko fenn lu dul ak jaay doole ak di jéem a bu xatal ab candidat boo xamante ni yaakaar nga ne ba demee ak moom élection mu gañe la ba tax nag nga yëkkati yenn fin yi di ko teg ci kawam lu ñu mel nag yow askan bi jàpp ne du dëgg di yoon ba tax nag ñu daal di si lëkkaloog ak parti Pastef di o Sénégal yëpp ni ki tey sa buntu kër Ousmane Sonko ngir fas yéene ni yooyu lay barrage mbokk internetu Net Bi dina wéy di leen toppandal xibaar yi fii si Net Bi TV Sénégal